salaamaaleykum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakaatuhu ah sëñ Waly baa ngi lay nuyu bu baax di la Mamadou Fadal di la ziyaara bu baax eh, di la jaajëfal ci xabaar yi may dégg léeg ma yem ci gis nga def ko ci defin wu am solo wax dëgg yàlla am na am na adaala li ñuy wax adala am na mandute eh, li tax nag ma xos audio bi mooy Benyamin Netanyahu dafa nekk ci guddi gu bët setagul nekkoon na ci sax naka jekk eh, waaye dafa gën a yokk te it bii mooy dernier gouvernement boo xam ne bi benn yaam benn Benyamin Netanyahu dana ko faloo ci Israël dootul falooti gannaaw geer bi dootoo déggati ne ñu ne moom amati na ndomb ak tànk ca réew ma note leen loolu ma leen wax te it jàpp naa ne boo defut ndànk ci kaso bi la jëm yaakaar naa ko lool wax dëgg yàlla ndax moom ci boppam am na doomam joo xam ne ji néewul sax ca réew ma waaye euh, ci wàllu corruption ak ay milliards yu bari yoo xam ne sërxal na ko deesoon na ko doon toppe mu fexe ba dëgg ci tànkam <clears throat> réforme judiciaire yooyu ngay wax nga xam ne indi woon ay manifestation yu bare bari am ay sax ñu fa blessé te mu bëgg koo defoon ca magistrature ba ak yenn charte yi nga xam ne day tax non seulement seen pouvoir bi gën a bari waaye élection yi tam mu am neneen lu muy tëddee yooyu yëpp askan ba dañoo lankoon ne loolu dafa amee ndax gisuñu ci woon seen bopp ñaareel ba mooy fii ñu toll nii euh, guerre bi li mu jëral Israël ci wàllu économie nga xame ne lu mu gàtt-gàtt waxoon naa lim ba mais jamono bii li ma ci euh, gëstuwaat mooy daanaka lu mat 6 000 milliards yoo xam ni daanaka semaine bi danañ ko ci ñàkk ci loo xam ne lii ay guerre bi la ndax xam nga soldat bu faatu fetal gu yàqu drone char de combat bu yàqu essence bi ngay utiliser balu fetal yi ngay utiliser tenue yi ngay utiliser lool ay milliards la loolu nag dafa tàmbali yëngal économie Israël donte seen monnaie étranger yi ñoom ñoo ko gën a euh, amal doole ak américain yi. mooy Benjamin Netanyahu euh, bii ci état bi ci la Israël di mucce ci Palestine ba faw wala ñu tàmbali wéy di xeex ba faw surtout waa Hamas ndax. ni nga xamee ne moom la Iran daan def ca ba muy wut bombu de bombu nucléaire ba ak coow ya ci amoon te mu tiitaloon waa Israël te Israël ba léegi am nañ bombu atomique waaye kenn mënul xam si secret la secret de polichinelle kenn non nekkul sax polichinelle ngeen daal ba ci kàddu googu secret la boo xam ne bi ñu bari xamuñu ko te Iran fii ñu toll nii jamono bii may wax ak yéen am na bomb bi am na ko ba làq ko ba taxaw taxaw ne ni ko Inde amee réew yi ko am xam nañ leen Inde am na ko France am na ko États-Unis d'Amérique Allemagne les grandes puissances am nañ ko euh, bu dee ci réew yi féetee Moyen-Orient bi Égypte mi daa gaa gaa ngi naan kii na ko ruumandaat waaye na ko wóorul waaye Iran moom leer na ma Israël it leer na ma alors léegi nag Benyamin Netanyahu ci boppam dafa nekk ci guddi goo xam ne gii am na sax ñuy ruumandaat ne boo def nang dañ koy rey ndax bu leen fàttali ne président euh, yi am fële ndax ci Israël mooy premier ministre ba am doole président ba du fa dara dañ ko ko sargale rek te Isaac Rabin Isaac Rabin dañ ko reyoon te la taxoon ñu rey ko mooy accord bu mu defoon ak digganteem ak Yasser Arafat ci accord ya ñu juboo ci ngir wéer ngànnaay yi amoon nañ sax ba d'accord ci ci délimitation frontière yi loo xam li Palestine daf doon moom boppam ci mbooloo lañ ko fekk jigéen a ko faat te jigéen ji dafa laxasu ci ay bomb ñëw mel na lu koy akolaat noonu nuyu ko takk téppaale kon Israël yàgg ñoo def jëf ju ñaaw seen président boobu looloo taxoon ñu rey ko te booba accord dong la woon ndax booba accord entre Yasser Arafat ak waa Israël ak ñoom Isaac Rabin waaw léegi ndekam accord nga ni d'accord ma ci li ñu li ñu li ñu xaatim te booba américains yi ñu ngi taxaw israéliens yi ñu ngi taxaw palestiniens yi ñu ngi taxaw Yasser Arafat mi ngi taxaw Isaac Rabin mi ngi taxaw loola nga ne àndoo ca ba tax nga rey sa président waaw ku sa président di rey ay nangami soldaar le 7 octobre ba léegi di ñàkk ay 6 mille milliards ci ay ay bis gu nekk di yàq ab matériel assemblée ba di bëgg a toj moo tax ba xeex ba tàmbalee rek Benjamin Netanyahu yow gu mu yow mu def lu mu njëkk a wax jumla bi mu njëkk a génnee ci làmmiñam mooy gannaaw lii nañu def gouvernement d'union nationale maanaam na ñëw ñëpp bokk ngir ñu mën xeex noon bi lam ci jublu woon pour ñu fàtte ay mbiram loola nag opposition ba dañoo dem ba nànd ko moo tax ñu rocceeku maanaam lii nii justice bi dafa am ñu jaar ci suuf na léegi yëngalaat leen dossier bi moom kay ñettee am mu démissionné dootul falooti mbaa ñu rey ko gouvernement am daanu waaye moom jeexal na ci Israël